ah wala nit la waaye ah nañ bàyyi loolu Laurent bis bi ngay bëree waxal ci bis bi ngay bëree. mbër bu mag la mbër bu mag la bëri na champion bu ne. waaw te amna na champion yoo xam ne bëgg nañ mu may leen sens. yàlla nag bul bi si man la ko tourné. tamit gis nga cin bu waree neex bu baxee xëy. waaw yàlla na ma yàlla suturaal rek. waaw ndax saa man mën naa lépp barki leeru alxuraan mais maanaam lamb ji day xaw a sama côté man looloo tax temps may bëri muy diire. nu muy méttee. amul kuñ jàppale. waaw. waaw amuñu koo xamante ne ni daf ñuy teg loxo quoi. man sama avance laa waagee sama combat mais sama benn grand garmi garmi waaw garmi moom bu ñu mel ni garmi naa sant yàlla bu baax a baax waaw garmi garmi da siy sonn barki leeru alxuraan garmi da siy sonn bu baax ak margo ya waaw borom faas margo da siy sonn. waaw yaa xam loo bëgg xoom président bi yow daal yaa xam loo bëgg yàlla na la ko yàlla defar Margot mais Garmi tamit jàmbaar la nangul bàyyi ko waa ba tey mooy sonn ndax saa barki leeru alxuraan dañuy jeexal sax suñ combat man looloo tax samay làmb di xaw a diire. Laurent waxal ci combat bi Tafa Gueye ngay bëreel de. saa man bu ma man bu ma amee jàppale laa la wax waaye damaa xool ay Tafa Gueye yow man lu sama man lu sama kanam moo Tafa Gueye dégg naa la sànq sa biir wax. Hmm? bi ngay tuus ba si yaa nga ne billaahi damay daan Tapha Gueye. si kàttanu yàlla fekk neex na yàlla incha allah. yee waaw bu neexee yàlla dama koy daan. ok euh, Laurent day wo combat bi fan la toll parce que ki ngay bëreel tamit yaakaar naa ne oto lum xaj-xaj nuyul ma sama yaay xaj na fi. Hmm. kii nga xam ne sa idole la toog sa wet am na fu mu jaar ak moom. Ah, kii moo ko na fu mu jaar ak armée ah, ah. maa ngi ñëw am na fu mu jaar ak Auguste ñoom. Euh, Coens bari na gis nga champion yi mu fi freiné aussi tamit koo kuy bëre moom anay tay yan ma rek ay Ama ay fëgal a yëpp waaw loolu moo lay wan man sama yoon si làmb daa war a leer ko waa waaw man booy mii di balbalu yi ñoo ma njëkk a bëre fuuf mais bëre Tapha Gueye bonus la si làmb hmm. eh, maa ngi koy sant bu baax aka ma kaa jox cër waaw mais bu arbitre sifflé moom barki leeru alxuraan mu neex ko mu naqari ko dañuy xeex ba pare soog a bëre samay tànk la jëm naaj mais dañuy xeex hypercule dina naaw ku perdi dina nu ma neex laay sàndeeku bu doyee ba jël nag moo ko fa am barki leeru alxuraan yee ndax ñun duñ ay ngaax ñun mën nañ bëre mm-hmm. yee bu ñàkkee fayda yàlla na ma yàlla suturaal may ma ndam mm-hmm. mais tamit bu ma ñàkkee fayda tamit ba tafaagay daw jël sama tànk mënu ma ko dindi mm-hmm. ma xam ne man mënu ma ok waaw ok lan moo tax ngay insisté ci tànk parce que gis na ne tànk boobu ci la jaar armée daal ko maanaam fàllu waaw ñëpp loolu la ñuy waxtaanee da ngay romb ay liir sax ñu naan la moytul sa tànk bi. sàmmal say waaw ay liir yu ndaw yu tooy xeeb naan la say tànk la jël. ay liir yu tooy xeeb. naan la moytul say tànk. waaw mais tamit. day fekk boo lool bii jël tànk ni day fekk tamit mu neex ma. bilaaxi waaw. bilaaxi. ok kenn ku ne xam ne kenn ku ne ne tamit xeex lay boole ak bëri. waaw bëre dóor la quoi man looloo tax may kontaan man sama làmb yëpp ñëpp dama leen yóbbu ñu faju ji waaw moo tax foog ñu waa di woo tamit Matar borom Casamance waaw ku ñeme ku ne dañ laa dee sëñ Fallou Mara maam say vie di ko woo waaw góor a saaliw sama yaay maam say sàmm Ndour waaw làmb gi sa làmb waaw saa Touba saa Touba waaw Baye Sidi Mbacke sama papa ak waaw sëñ Sidi bu sëñ bara ye di wo kep ku may ñaanal amna ño xamantene bëggu ñu ko tuddu seen tour yemal fo ñu ñëwaat ci combat bi bis bi ngay bëré day bis bu reuy 17 décembre Zarko ak Diène Kairé di bëré grand combat bi am ñu nekk ci lamb njëkk la bëré ëpp la ay combat ñu jox la spécialu bis bi ana tay ban waccay nga wara a ñëw moo tax ma ne la da am lo xamantene ne mbiru yalla la du man da am lo xamantene yalla yàlla ko defaral quoi léegi tey jii ni buñ ma joxe comme ay spécial ni rek ye sant yàlla quoi barki leeru alquran ye amna na xam du si man quoi du sama jàmbaarte yàlla moo ma sédd loolu noonu ye man manam. lamb da am lo xam dama ci wara a ay nit yu beuri motax yoon bi warul yag dal waaw ñun ñi ni fi ñep ñen ñu buñu xeye deuxième jour duñu xëy mm. te ay liggéeykat lañ ñenn ñi jàng ba sori mënuñu am luñ liggéey mm. mais tamit man làmb daf ma war a fay ma may leen départ mm. waaw mun ma tekkiloo boo yëpp mais mun naa leen may départ xanaa waaw man bu may sonn rek boo yi nii la barki leeru alxuraan ya man saa dara dawul sama yaram billaay suba bu ma bëggoon tukki nii mun naa tukki waaw yoon la rek am naa ay link yu si mën a jàpp mais bëgguma bàyyi booy ginnaaw waaw am na ñoo xam boo leen ginnaaw ñu sànq. wóor na sëñ Fallou mm. mais pour ay tafaage yii nii. Mm. non duñ tere reere. bar sëñ Bamba. nga ne duñu tere reere. non non ok gars ku ci am question rek mu ñëw ba tey euh, euh, dañuy taxaw. Mm. sa premier combat.